alors Tata ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ma fii. mel ni Karma tey lay jeex. waaw Karma jeex na deuxième saison bi ñu sant yàlla nag bu baax a baax bi ñu mayee fekkee ak dal ñu def première saison ba jeexal tey deuxième saison bi. di sant tamit suñu public bi bu baax a baax parce que nag ils ont aimé ils ont suivi macha allah. ban nga dundee deuxième saison bi parce que si la gën a intense si lañ la gën a gis. nga joué rôle bi nit ñi apprécié wuñu sa rôle nag mais teewul sañ-sañ euh, nga ko bu baax te ñu ni waaw loolu la xam nga pour la première fois ci sama carrière ma joué rôle boo xam ne bokkul ak yi ma yi yi xamee woon yi ma bëggee woon mais loolu day wane rek ne artiste day polyvalent da ngaa war a mën a côté bu ne rek waaw macha allah te nag au nag ay la bonul. Aida bonul tax bonul tamit sama turandoo bi tamit des fois dañ may xas naan Aida yi dañuy. déedéet Aida bonul Aida problème am mooy Abdou Majib c'est une mère couveuse dafa day protéger njabootam ba day xaw a ëpp tuuti rek mais mais bonul. mel ni am na yaay ñoo xam ne njaboot jaral na leen lu ne. voilà loolu tamit dañ leen ciy ñaax rek parce que tamit loo bëgg a bëgg doom du tere tamit nga nga doxal yoon daal. waaw protéger sa njaboot moom noonu la yaay yëpp di def. mais bul protéger sa njaboot ba lor njabootu jaam waa rôle bi yan retour nga si am nit ñi est-ce que des fois si bedd xaw si am problème. waaw man daal bu ma génnee li may wax yëpp mooy maman bàyyil Amilaya mu sëy ak Majib ñoom daa xam naa ne Amilaya couple ami ak Majib bëgg nañ ko waaw ñoom daal loolu lañ may critiquer maman bàyyil suñu ami bàyyil suñu ami national man na ami bàyyee Majib ñu ne non non. gis na yow tamit nga nekk femme au foyer boo xam ne non du sax au foyer am nga entreprise am nga lépp mais teewu yaa ngi toppatoo sa famille sa jëkkër complicité waaw loolu moom dañ koy sante yàlla rek sant borom kër gi parce tamit comme ni nga wax yombul nga xëy pendant des jours ngay nekk ci biti di yendu ci àll di fanaan àll bàyyi sa njaboot gannaaw yombul. mais comme métier bi la rek waaw toujours rek bu ñu yàlla boolele ak boole koo xam ne comprendre na dafa yomb ñuy jàppale ci kër gi jàppale ñu ci njaboot gi bu baax a baax waaw. d'accord mën nañ la xaar ci leneen troisième saison dina am dégg waaw incha allah la xaar foofu ay da ah, de xam naa ne moom mu ngi noon daal Aïda daal lu ngeen ko ci Aïda rek moom la waaw. merci <laughs>